sabaru gamzatin junnatun sabaru gamzatin junnatun sabaru gamzatin junnatun yëg nañ mbégte gi bu baax sant nañu waaw Serigne Thialiou Thioune na ay mënin wallaahi kontaan nañu xol yëpp sedd na. màggal gi daal nii lañ koy defee ñun cantaakun yi ak ñëpp murid yëpp barki Serigne Saliou Mbacké ñun fii leen xam jannatu man ba ma dalee ñëw Touba léegi daanaka janatu daal waaw fii laa fii laa xam Touba gépp fii laa xam abaat jumaa ja kon ni ñu yeesee nii def suñuy drôle lépp rek cheikh bi. maanaam bàyyam la nu yaakaaroon mais dañ ne maanaam taw mooy doon nu bàyyi waaw ñun moo tax ñu ñëw yeggali yéene gi waaw te dañuy day gën a yokku rek du maanaam day gën a jëm sa kanam du am benn tànku gannaaw. sëñ Béthio daal jóge na fi mais moo ngi moo ngi mel ne moo ngi fi. ndax nee ne tey Serigne Touba goo gis gu ne day gàccal démb. moom da di borom yéene waaw parce que la baay doon def maanaam dafa ñëw gën ko maanaam gën koo gën gën ko see may doole daal kenn du moom. te xam ne Serigne bi jëmmam ji du fi jóge Serigne Saliou ko waxoon jàpp ci yow mooy jëgg dëgg jàpp ci man dina ma noppal fii ak fañ jëm te ku la jàpp dina ma def la mu neex. barki Serigne Touba bég nañ de. rek di sant nag màggal gi suus na neex na barki Serigne Bamba. di ko di ñaan ñu koy gën di mën a def berne yaa ngi ci biir lépp a ngi ci biir. tey gis nañ fi lu doy waar lu ñu mës a gis bernde yi bari na sëñ Saliou nag yi bari na gileem yi mënuñu la ko wax. def nañ suñuy ndawal yu bari suñuy ginaar suñuy pison loo xalaat lu nekk dressage bi léegi léegi lañ fa jógee def suñuy ndékki yu neex. daal lépp li ñu daan wax ci Touba euh, mbégte euh, bànneex yi fi amoon na xewal yeeg yooyu noonu wax dëgg yàlla bi ma ñëwee naa ko en plus wax dëgg yàlla mbégte laa ci am ak contentement. màggal moom daa daa daa daa doy war daal fi da ngay xool nit ñi fii ñëw ku nekk am nga foo jóge te kenn xamul sa moroom da ngay dugg ci daal goo xam ne ñaan nit dafay xamante nga xam ne loolu suñ Tuubaa képp ko am daal. c'est la première fois nag euh, ma ñëw ci euh, ci màggal bi ci màggal bi fii si Touba donc mais bi ma ñëwee itam wax dëgg yàlla mbégte laa fi am ak contentement euh, wax dëgg yàlla ma gi daal neex na neex na trop trop sax wax dëgg yàlla. Zabar bamza zin junnatul Zabar bamza zin junnatul Zabar